jërë ngeen jëf amit téléspectateur people 221 ñuy siiw ñu ngi leen di nuyu di leen ziar baax a baax di am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen di leen ñaanal jàmm euh, di nuyu suñu kilifa di nekk suñu kilifa aada yi di ñaan Sénégal yàlla na fi yàlla dolli jàmm tey nag ñoom di leen benn invité spécial boo xam ni bëriwul lu muy feeñ ci réseaux sociaux yi xanaa lu dul liggéeyam man mën naa ko wax raja ak ku nekk ak tur bi nga ko xamee ci série mais mën naa wax Kalara mën naa wax raja moom lañ fa seenee seet si wax seenee waxtaan ak moom dañ lay bàyyi nga nuyoog ñu lay siiwal waaw asalaamaaleykum waa Sénégal euh, nuyu naa ñëpp yow aussi maa ngi lay nuyu bu baax a baax a mhm. baax guy gi mhm. di la wax euh, félicitations et di courage. yaakaar naa ne àdduna soo amee jom rek. am mhm. fu la am fayda tey. lépp rek dina ñëw incha allah nuyu naa ñëpp. nuyu seen site bi ñëpp daal maa ngi lay nuyu bu baax a baax. en fait mënuñu xam kan mooy kan mooy kan man nag Radia laa man gën a tàmm de. <laughs> au fait euh, Radia du kenn quoi je une personne bi nga xam ne. mën naa ne man maay yow. Mm-hmm. man ma yow. Mm-hmm. ça veut doomu Adama Ndiaye laa nit laa. Mm-hmm. nit bu oyof nit bu simple nit bu sensible. nit bu am respect tout ça. nit bu te aussi. nit bu am patience ak courage. ndax nee naa la àdduna soo amee patience ak courage ñàkkoo dara si sa àdduna. Raja daal mi ngi nii benn yaay faal bu ñàkk solo. fait la lan lan moo dugal ci ci ci ci au fait euh, lu ma dugal ci ay séries mën na mën naa wax que ni sama sama don la daal. Hmm. parce que bi may jàng école euh, maa ngi nuyu waa Saalum yëpp parce que man Saalum Saalum laa. lycée bu euh, Nioro di rek Maba jaxu Ba foofu laa commencé jouer premier ak club espagnol moo tax ma bëgg espagnol daal. Uh-huh. mooy loolu léegi après si leen Fosco yi yow xam nga Fosco yi. après si la ñëw. ñu xool ma boobu maa ngi nekk xam nga rek alpulaar yi moom mooy loolu. rafet macha allah. léegi après si leen ma jël ci série boobu noonu. ma joué ko mu cartonné depuis boobu ma sentir que ni man mënuma mosuma joué mosuma répété sama àdduna. Mhm. je dis que lii don la ci man daal. loo ma jox ma joué ko depuis boobu nag ci laa commencé dugg ci milieu bi. kon jàngoo ko nekkul formation boo def. non nekkul formation xam nga àdduna ku nekk parfois di nga di nga oh, am benn opté boo xam ne nga ni man lii lay doon lii lay doon mais yàlla jox la loo xam ne boo xoolee ba ci biir rek don lay doon man yaakaar naa ni mhm. euh, li ma doon tey actrice don la ci man mhm. parce que loo ma jox rek ñeme naa ko dama koy jouer mhm. mm. d'accord ci kaw loolu tey euh, du ñàkk commencement bi da nga ko doon jàppee mbalak parce que képp ki doog a dugg ci milieu commencement bi da koy jàppee ay mbalak mm. mais kañ nga sentir ni man mii kat il est temps ma dëggal sama ci art bi non au fait euh, première fois bi nga xam ne joué naa ak euh, mooy Clara bi. waaw avant Clara bi aussi euh, li tax ma am jom sama àdduna li tax ma xam ne que ni àdduna soo bëggee benn affaire bëgg-bëgg même bu méttee sax. Mhm. demal au fond parce que yàlla dina la jàppale. amoon na baax Sall kooku moom mën naa ni sax tey si li ma doon moom moo ma formé. Mhm. formé ak toj sama xol. parce que classe tey woon mi ngi doon daw seen TV. Mhm. y avait plus de ay cent personnes. léegi bu ñu ñëwee répétition ñëpp lay jël man mu teg ma à côté ñàkkal ma fay de tout ça. après man su ma ñibbisee sama kër. da damay damay ñëwaat taxaw sama seetu naan est-ce que man la est-ce que man la lii maa ko bëgg wala folie la wala buzz moo ma ci dugal je dis non man maa ko bëgg depuis boobu nag laa rayante premier je me rappelle premier tournage classé ak Bara la dama tourner tourner mu décroisé. Mhm. ñu toog ay deux mois trois mois ñu defaat beneen tournage. léegi tournage boobu nag jour boobu nag laa ne tey man damay dëggal sama bopp. Mhm. li nga xam ne moom laa doon actrice bi mu doon sama mu nekk sama deret. Mhm. dama dama koy dëggal jour boobu noonu ci laa tourné ak moom mu cartonné quoi moom si boppam dafa tiit. depuis mhm. boobu nag ci laa am fit ak courage comme li ma lay wax rek patience bi. ba tey mu ñëw. dama ñëw ci série Clara boobu. mu nekkoon série boo xam ne nag vraiment touché woon na sénégalais yu bari. Euh, série boobu bi la joxee scénario bi. avant nga ciy dugg. Mhm. naka nga ko jàngatee. waaw au fait avant bi dama toog fii lu yàgg tourné wu ma je dis que man même waruma mën a dépasser casting. Mhm. parce que fu ma dégg casting rek war naa mën a dem sama àdduna. Mhm. parce que sens mi ngi sa tànk comme li ñuy wax rek wërsëg ak dee ñoo yem. foo mënti nekk ci àdduna da la fay fekk. ci laa dugg euh, euh, Facebook ma gis waa Yadaake ñu def annonce. que ni dañuy def casting tout ça. man tim aussi ma ni xaaral ma dem ci laa dem ñu def casting bi après mu réussir après si leen ma jël actrice principale daanaka yi ma série yi ma tourné yëpp actrice principale laa fay jouer mhm. peut-être yàlla mooy def loolu après si laa si laa tourné ak ñoom juma me sax premier jour euh, épisode Clara bi ñu koy tourné c'était à sacré mhm. ñu tourné ba ngoon jot c'était tellement dur comme man dama sama xol nu mel na rek ma toog toog toog ba nga xam ne ay 17 heures kenn lekkul ma génne sama xaalis jënd fataay ñu lekk ñu tourné ko. mu réussir affaire bi nice après si leen ko continuer mu doon série d'accord tey série boobu noonu nga joué ci rôle boo xamante ni. métti mm-hmm. euh, na. Mm-hmm. ci ku koy seetaan. Mm-hmm. Eh, série boobu noonu bi nga koy njëkk a joué. nga toog gars yi dugal ko parce que mën naa ñëwaat ci série bi tuuti. il paraît que sa papa daf la ci violé. alors nga dem doon sëy. dem après euh, dem di sama appartement. di def li ma neex. alors que boobu kenn xamul que ni li may dund. parfois si àdduna nit dina dund li nga xam ne danga nga koy gis naan dafa bon. Hmm. kii dafa vulgaire alors soo ko jegewul soo waxtaanul ak nit rek doo xam au fond d'une personne. Hmm. parce que dama naan nit habillage la rek. ce qui est important dans la vie ci nit sax lu gën a important ci àdduna nga bëgg a réussir nga ñàkk cent francs gën belli gën nice mhm. dara du la ko may ci àdduna lu dul xol bu rafet soo mhm. amee xol bu nice rek mhm. yaakaar naa ne ak lépp loo mënta def ci àdduna rek bés boo toogee ak nit rek après da ngay comprendre jour boobu noonu ci laa toog sama euh, joué ko joué ko mais sama ñoom bàjjen dañ ma loon traité lu nekk Clara lii lii ak takk bi bi mu bëggee am la famille tout ça euh, dund si société bi. Mm-hmm. après ci la sama bàjjen wax sama goro bi que ni yëg nga ne Clara Thiagala jël na ñaari rakami lii ak lii mais jour bu ma waxee sama bàjjen lan moo tax ma génn sama kër yaay lan moo tax ma dem louer appartement boobu dafa tiit pour te montrer que ni benn nit bonul. Mm-hmm. àdduna kenn bonul. xëy na ku bëgg a bon sax boo ko jegee waxtaan ak moom sax dina dina ñëwaat ci. d'accord foofu noonu foofu noonu dafa doon loo xam ne nii euh, série bi loolu ñu la fi joué dafa doon loo xam ne da nga ko dund wala da jege ay nit ñu dund ko ba tax sànq yaa ngi wax ci say biir wax fi ma jaar ak li ma dundu mën nga ñu ci expliquer tuuti rek ki sa histoire. sama histoire si si série bi. Hmm. non sa histoire parce que loolu noonu tey <laughs> xam nga tey des fois ñu jox la série boo xam ne yow da nga koy joué. Mhm. mais en fait lu ci ëpp day doon loo xam ne nii sa vie doon mu mel ni sànq ba tey damay dégg ci say wax nga naan. Mhm. fi jaar ak li ma dund mu mel ni da am loo xamante ni ci sa àdduna da nga ko dund mu xaw la touché. waaw au fait donte ñëpp a ci jaar ah. waaw foofu lay waxee. Mhm. gis nga àdduna bi am na loo xam ne su su ñëwee rek nga weddi yàlla. Mm-hmm. te euh, est-ce que xam nga ni gëm-gëm doon na li nga xam ne c'est très difficile. Mm-hmm. pour nit ki gëm. Mm-hmm. dafa difficile. pour nga gëm sa bopp sax dafa difficile pour nga gëm que ni sax yow àdduna bi yàlla moo la fi indi sax am na ñi nga xam ne gëmuñ ko c'est tellement difficile. mais soo gëmee sa bopp gëm sa bopp gëm sa bopp jàpp que ni li ngay dund euh, euh, yàlla suñ borom bi moo la ko teg te adduna bi dañ fi nekk juste pour apprendre. comme li may wax chaque jour rek mm-hmm. man damay bëgg chaque jour di daanu mm-hmm. damay bëgg chaque jour ni may def benn affaire boo xam ne damay jooy may damay jël sama bout de papier dama koy bind parce que man lu ma daal sama àdduna rek dama koy bind euh, mm-hmm. dama koy dama koy bind te dund naa li nga xam ne euh, maa day taan ni loolu moom <laughs> je dis nga ñu ci expliquer tuuti rek parce que tey Clara amaana du ni c'est la première fois mais bariwul lu koy gis ci réseaux sociaux yi. kon mm. donc tey parce que li tax sax gën a insister foofu noonu. Mm-hmm. des yenn rôle yu bari dañ la koy jox mais day doon rôle yoo xam ne nii après sénégalais dañ kii lan moo tax mu joué lii. dafa il fallait que tamit nga expliquer donte tamit vie privée nit kenn du ci dugg. Mm-hmm. mais tey nga souligner ñu tuuti li tax ma dugg si série yi sax mooy j'ai vécu mariage forcé mm-hmm. comme li may wax rek on m'a maltraité mm-hmm. ki ma takkoon lu nekk lu nekk la ma doon def dóor ma tout ça di ma tëj du ma jox ma lekk du ma jox ma naan mm-hmm. dama doon jàng man hôtesse de l'air laa bëggoon a doon sama adduna je dis que su ma amee bac moment bi may préparé sama bac nag après moment boobu nag xam nga famille rek nit ku nekk am na fi ngay toll da bëgg teral sa yaay. Mhm. dangay ngay bëgg a def li nga xam ne dafa neex sa yaay danga naan même su ma si duggee su ma si amee euh, déception sax garaawul lii dama ko def à cause de ma mère. Mhm. après waa ji ñëw xaw ma ko euh, après ñu takk ma takk bu gaaw. Mhm. mercredi laa ko xam mu takk ma dimanche. alors que j'étais j'étais septième femme. waa ji amoon na septième femme waaw sept jabar day takk di fase tout du takk koo xam ne nekkul xale ko mm-hmm. après takk la soo ñëwee di nga jàng di nga jàng ñaari doom laa am ma ñëw këram fekk fa six doom ñu maltraité ma façon maltraité bu nekk fanaan naa du Dakar mburu mburu une semaine lekk naa ko def naa lu nekk. Oh, boobu ana say parents. boobu samay parents xam nga am na fi ngay toll sa àdduna. Mm-hmm. yaa ngi sëy. Mm-hmm. mais sa parents yi dañ naan yow da nga da nga bëgg da nga bëgg a bon. fekk alors ko du bon. ñoom xamuñ au fond li ngay dund. parce que sëy dafa neex. te booy sëy da ngay sëy ki nga xam ne kooku nga bëgg. Mhm. du question alal man li may wax chaque jour rek. Mhm. man je préfère sëy ki nga xam ne jaaykatu banaana la. Mhm. day wàcc ñu am. Euh, complicité bi. Hmm. am communication bi. Hmm. lépp day daw. Hmm. mais iman imagine toi ki nga xam ne takk na la. c'est un milliardaire takk la après yóbbu la këram maltraité la ça c'est euh, c'est autre chose quoi sama àdduna. dund naa li nga xam ne métti na ba tey dama naan man sama xol dafa toj. parce que foofu laa jaaree je suis trop sensible. boo na A B Y sax ma ma parce que rôle yi may joué yëpp après dañ may naan comment tu fais pour pleurer alors que. je suis sensible daal mm. noonu laa def di di kurti kurti kurti kurti di daana ko jóg mu métti ma am benn yére su ma ko fóotee mu wow fier na bu baax. te boobu fekk na boobu divorcé nga. waaw boobu divorcé naa. Mm-hmm. fier bu baax a baax a baax après soo génnee nu ñu lay xoolee que ni kii yor na fekk yoroo dara. Mm-hmm. mais yaa ngi yaa ngi yaa ngi am gëm gëm gëm gëm. Mm-hmm. que ni man mënuma tey euh, Radia mënul réussir si àdduna kenn mënul réussir si àdduna ñi tabax immeuble sax am na foo xam ne jaar neen fa tey bu lay nettali seen jaar jaar. danga naan non non nii nit dundul ko te man li ma la wax nii sama sama sama jaar-jaar. lu tuuti la ci man mama mama yi ngay yi ci mbedd mi. Mhm. naka nga ko naka naka nga ko doon dundee du ñàkk des fois nga ci nga ci doon am ay déception ay di ñëw bëgg di la di la jaay nga ko doon dundee. waaw moment yi may dund si mbedd mi mooy première fois dama woo sama xarit ne maa ngi ñëw dama am problème benn kër bu ma nekkoon nee na mënatuma fi nekk tout saa fekk après divorce bi sax. du ma du ma loon am fu ma loon dem Anse Bernard laa toog di fa yendu. Mhm. ba ay dis h 19h. après may may xalaat fan lay fanaan dem naa ba bu guddi jotee duma am fu ma fanaan dama yéeg ci balcon jàmbur yi pour fanaan fa parfois mu taw man may wax sama bopp naan non non non non bu ne pleure pas quoi di waxal sama bopp muy métti su ma woowee sama xarit tey ñu ne fanaan fi xam nga affaire di jigéen ak jigéen rek. nu ñu lay def ak nu lay dundee ma woo sama benn xarit ay 22 heures mu ne ma ok mën nga ñëw jël sa bagage yi indi sa bagage yi après si laa dem ma woo ko woo ko woo ko ba sonn jëlu ma deux heures ba trois heures du matin maa ngi tëdd ci pharmacie bi nekk Besseyaawo. Mhm. foofu laa tëdd ak sama bagage amoo amatuma woon fu ma dem euh, am na divorce parents yi mere neen la da nga bëgg a bon da nga bëgg a taxawaalu alors que ñoom objectifu divorce bi sax ñoom xamuñ ko ki nga xam ne góor bi nga xam ne takk na di fase di fase yow nga doon septième jabar bi nga xam ne. c'est telement tellement ma woo ko ba sonn après si la ay gel romb ma foofu noonu xam naa niñ ma rombee la comme ni ñuy wax mm-hmm. yàlla ku nekk bu la tegee nattu rek am na loo xam ne mu ngi la koy andi soo amee gëm-gëm rek mm-hmm. ala kulli li nga nga bañ a yàkkamti sa àdduna rek dina la boolee ku baax koo xam ne dina la dimbalee mm-hmm. san autant que mu xalaat benn benn benn benn benn euh, intérêt si yow après ñooñu si leen ma jël yobu ma seen que tout ça juste mu tombeel quelques jours après ñu ma da ngay dem sa famille tout ça ma demaat sama famille quelques jours ma ñëwaat woote waat c' était tellement difficile mhm. ma ñëwaat nekkaat benn kër boo xam ne après maa doon dem di liggéey di liggéey benn boîte boo xam ne euh, Dakar la nekk ñu may fay vingt mille francs di fay ñeneen ñi xaalis bu bëri. ñu lay fay vingt mille par weer. aw ma woon yëre aw ma dara man su ma ñëwee ñoom lu ma gën a marqué nag sama àdduna mooy su ma ñëwee ba heure wàcc ci jot rek ñoom dañuy gaari seen taxi woo seen taxi man man damay toog ci buntu boîte bi ak gardien bi ba 6 heures car rapide génn pour ma mën a dem ñibbi su parfois dama doon ñëw liggéey si sax du ma am sax lu ma lekk mais tout le temps rek ci laa tàmmee yar sama biir ba tey ba léegi nii ma toog nii nii nii nii mën naa toog ay trois jours duma lekk ça me fait rien du tout. bëri na bëri boo xam ne tey su ma koloon nettali. Mhm. c'est telement tellement dur bi nga xam ne. tu peux pas comprendre euh, la vie. Mhm. la vie c'est c'est c'est d'apprendre. Mhm. et moi j'ai appris beaucoup de beaucoup de choses vie. c'est dur quoi. Euh, Euh, man commencé na maa touché parce que métti na trop mais mu muñal góorgóorlul. Mhm. te xam ne àdduna moom moo demee noonu. an say parents ñu ngi fi. waa sama parent sama parent mi sama papa mi ngi boo sama yaay mi ngi Nioro. Mhm. waaw d' accord tey série boobu nga jugee ci. Mm-hmm. ñu gis ni lu ëpp aussi tamit ci say série mm-hmm. da ngay jouer ay role yoo xam ne day sexy mm-hmm. la fois passée ñu ngi publier benn vidéo boo xam ne da nga ci sol beccoo euh, série yooyu noonu ñu bari tey jii di la ci adressé ngay dundee du ma ni mais nan ko naka nga koy dundee ci waaw euh, man dama naan tey su ma demee ba nangu jouer loo xam ne man ak caméra bi la parce que damay wax tout le temps caméra mooy sama mooy sama ennemi number one parce que waruma ko ragal dama ko war en face jàkkaarloo ak moom. Mhm. tey su may joué loolu noon pour man juste séeréer la rek. Mhm. après série bi mooy parce que sénégalais yi dañuy dañuy dañuy jaawale euh, personne personnage ak personnalité. Mhm. perso li ngay li ngay joué nekkul que ni moom nga moom moom moom ngay dund. ki may joué nii euh, buñ paree buñ ne coupé. après du wax sax ma wax parce que man ak moom dañuy rusante mais gis nga ci série bi nu may joué parce que dama naan man sama sama don la li ma bëgg la kon donc man lu ñu ma joué loo rek ci mhm. àdduna mhm. dama koy joué mhm. sauf li nga xam ne moom euh, su ma ko joué dina am li nga xam ne dina marqué sama àdduna mooy lool mais des fois ci say série boo joué ba ci yàgg ngay xalaat la li passé ak li nga jot a dund ba tax des fois ngay accepté aussi tamit di joué yenn rôle yi parce que tey rôle yi ngay joué Sénégal bëriwul ñoo xam ne dinañ ko accepté pour def ko non non li passé xam nga li ko xalaat parce que yàlla ma Euh, d'après bi ma la expliqué sama jaar-jaar. Mhm. tey su ma yàlla suturaal toon. Mhm. doo ma fekk fii di ma interview. dëgg la maa ngi ci mbedd mi maa ngi ci yi maa ngi mhm. def lu nekk. mais ma am gëm-gëm bi rek li ma gën a marqué sama adduna mooy. Euh, bi ma jógee foofu noonu après di dem di wàcc di commencé di liggéey bu ñu ma fayee ma dem ay marché samedi marché di jënd yére. mais kii ma hébergé woon bi mu gisee que ni man commencé naa am yére après dafa jël sama bagage mu génnee ko ay une heure xaw ko. ñoom ñoo la fatoo ñoom ñoo la fekkoon bés yaaw jël la. non no bokkul bokkut ak euh, bokkut ak euh, ñoom maman maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. ak Fatou maa ngi leen di nuyu bu baax a bokkul après foofu noonu dama demaat bi ma jogee kanam Fatou dama demaat sama yaay ma toog fa quelques jours ma ñëwaat je di que man ma toog fii nii nii arrangé wu ma pour man ma combattre sama vie combattre sama life il faut ko ma takkaat sama sa sama sœur amaat fit amaat gëm-gëm ak doole pour pour mën a réussir. Mm-hmm. parce que du question que ni euh, jigéen góor utiliser na la wala góor maltraité na la tu tu vas rester là-bas à pleurer wala nga naan nii yàq na sama àdduna. ku yàq sa àdduna yow yaa ko nangu. Mm-hmm. après si laa ñëwaat ñu ñu génnee ma après bi ma génnee ma ne ko man ngay génne mu mu ne ma si biti ma ne ko bu doon sarak bi nga bokk ak ndey ak baay doo ko mës a génnee fi nga dëkk oh. mais xamal ni que ni suba mu naa ma ne ko danga may soxla te bés boo ma soxlaa lépp lu nekk sama loxo yaa parce que bu dee benn fan sangu naa lekk mm-hmm. naa sa lekk tout ça. Mm-hmm. après si dem demaat sama beneen xarit bu nga xam ne ndeysaan mami saw maa ngi koy nuyu bu baax a baax mu gis ma rek bëggal ma boppam tout ça ñoo ñoo ñoo ñoo bokk sant sawla sant ma sant saw. Mm-hmm. après si la ma jël di fay appartement am fayekul ma dara du courant du ndox du dara mais avant avant may dem si mami asafula avant may dem si mami bi ma bi ma jógee kën a may. avant may dem si mami dama fanaan sama kër copine trois jours avant may dem si mami. léegi ñoom ñu jënd lekk jënd añ tout ça woo ma ok reer ñu woo ma ne ma yow da ngaa lii buñ la waxee nga def nii nga ne yow doo def nii yow yaa ñu gën ñun ñu nga xam ne dañuy yaa ma gën a xam dañuy jaay suñ suñu kii mm-hmm. yow nga ne yow doo doo lii yow kan nga doon ma ne ko ah non man xaw ma loolu man musuma dund loolu mu ne ah yow yaa xam anta suba duñ ko jox mu lekk ma ne pour man dañuy caaxaan mm-hmm. maa ngi foofu sonn naa aw ma xaalis nu may def mm-hmm. te ku doog tu toog ñaari fan lekkoo aussi c'est un c'est après si laa xëy ñoom ñu jënd seen ndékki jënd seen añ jënd seen coca j'oublie jamais cette cette histoire dans ma dans ma vie pour man loolu moo ma gën a yokk tey ma am gëm-gëm am mhm. patience sama bopp mhm. après ma toog ma xiif maa ngi miir ma dem si waañ bi affaire bi lekk bi des ñoom ñu jël lépp def ko ci mbalit bi def ko ci raxas lépp aw ma fu may dem pour lekk léegi ñu ne ma euh, c'est une histoire li ma la mhm. c'est une histoire léegi ñu ne ma euh, soo bëggee loolu dañuy woo benn gaañ après nga ànd ak moom mu jox la xaalis soo ñëwee nga lekk mu aw ma nu may def j'ai accepté par sonn quoi. Mhm. ma foi. Mhm. mais ba tey accepté bi dama ne peut-être yàlla fii la may ubbilee bunt. Mhm. naa dem rek pour xool ak exemple ci adduna parce que sonn naa au moins fu may dem sama parents yi mere neen ma tu tu as tu as ñu ne yow da nga bon alors que du question que ni da nga bon lii ak lii ak léegi après si laa dem ñu woo waa ji euh, léegi waa ji bu mu ñëwee ñu ne ma wàccee ma ne wàccu ma ñu ne ma ah après waa ñibbi waat. pour man guddi bi ñoom bu ñu jëndee reer ba tey dañ may woowuñ ma. Mhm. léegi ma tëdd tëdd noonu laa tëddee jour boobu noonu ak xiif xiif ba sonn xaw ma kenn Dakar aw fu may dem tout ça. léegi si matin bi aussi ma sonn ma leen mun ngeen woo gaayen bi ñu ne ma buñ ko wooyee démb ñëw na fii nii woo neen ko ngay def daf def ay affaire ma ne leen woo leen ko. ñu woo ko mu ñëw comme lu ñuy wax rek saan xoolal tey maa ngi dëkk ci côté bi nga xam ne sama premier histoire sama àdduna muy muy Ngor traversé Ngor. Mhm. fa léegi bi ñu duggee si taxi bi def traversé waa ji ñëw tout ça jël chambre tout ma dugg maa ngi toog rek. comme li ñu wax yàlla bu la naree dimbalee rek mm. da lay dimbale. Mm. waaju tey waaju baax saan te amaana na tey jour boobu noonu yàlla bu mu suturaal toon mm. est-ce que euh, guy gi tey duma ma doon une grande pute dans la vie. def def ko métier def ko liggéey. mais ba tey au fond gëm-gëm ak xiif ak sonn aw moon fu ma dem. dem naa ba avant may gisanteeg waa ji noonu. Euh, dama doon fëgg kër jàmbur yi naan bëggu leen liggéey ñu ne déedéet bëggu leen lii ñu ne déedéet après aw ma fu may def naa lu nekk tout ça pour réussir avant may liggéey ñu may fay euh, vingt mille francs yi ci ci ci boîte bi mhm. euh, waa ji léegi ñu toog mu ñëw simmeeku def ay affaire maa ngi sëgg rek bi ma sëggee sama rongo ñu ngi tuuru mu ma looy xaar doo simmeeku ma ne ko ah kay maa ngi sëgg rek mu ne ma yow laay waxal simmeekul après ma jékki saay rek ma def def nii sama yére rek tourné xool ko rek sama rongo ñu di tuuru mu ma eh yow lan la ma ne ko dara mu ne ma lan la ma ne ko dara ma ne ko est ce que xam nga ni sama àdduna tey soo ma fayee te ak tëdd ak man musuma def lii sama àdduna ta xaw ma lii rek waa ji jóg. Mhm. ne ma looy wax nii ma ne ko si lan moo tax sa xarit yi def la lii ma ne ko parce que dama sonn dama xiif moo tax te ñoom nee na duñ ma jox ma lekk duñ ma jox ma naan ma jógal ma jóg mu yëkkati 45000 jox ma. bi ma joxee xam nga man comme lu may dund sama àdduna chaque jour rek man dama yàgg mus ci laa ci laa jël quarante mille yi ma def ko sama soutien. Mhm. ma jël cinq mille francs yi ma yóbbu dem sama xarit yi bi ma demee ndeysaan muy ub dama ubbi buntu bi rek ñoom ñu yuuxu daanu sama kaw. Mhm. ñaata leen la jox ma ne ko cinq mille la ma jox mu ne yaa ñu tane ñun bu ñu commencé ay deux mille la ñu am ay trois mille jour boobu. la passe si cinq yi jël sama bagage fekk maa ngi xamante woon mag mi jël sama bagage jël décision dem kën a mami si laa leen quitté ba tey nii ba lii bëggatuma ak kii ci ñoom dara. Mhm. ku nekk sa àdduna rek war nga mën a doon xarit si sa bopp. Mhm. parce que nit ku nekk am na loo xam ne da koy war a mën a toppatoo. Mhm. nit am na nopp am na gémmiñ am na tànk am na lii soo xëyee fa mën nga def say pédicure say nopp tilim da nga koy nettoyer. Mhm. sa kanam am taas da ngay toog di def ay gommage donc nit war na mën a xaritoo. sans autant que naan damay dund sans xarit dama naan man xarit amul te xarit benn lay doon du mës a ñaar ci adduna noonu laa noonu laa dundee dundee dundee commencé dem di liggéey di wàcc di liggéey di wàcc tout ça ak Ami Diagne rakk Mbaye Gueye Faye bi moom fekkee na lépp ndeysaan mm-hmm. su ma naan wàcc di jooy ñoom Bousso leen may wax maam Diarra Bousso Bousso métti na mais day baax ma ne ko Ami Diagne dama sonn tout ça mm-hmm. mais tey ak gëm gam bi conseil lu ñu may conseil commencé di liggéey ñu may fay ñu may fay ci laa dem dëkki Nord Foire mm-hmm. bokk ak pakati mi mi décédé ndeysaan maa ngi koy ñaanal yàlla suñu boppam yàlla na ko yàlla xaree àjjana sama xarit la woon sama lépp la woon si laa commencé di louer bi ma commencé di louer nag ay vingt cinq mille laa woon di louer am gëm-gëm-gëm hmm. di dem di liggéey dem di liggéey ba ba ba tey nii yàlla suñ boom bi hmm. suturaal ma tey ñi ma doon maltraité samay xarit tey buñ ma gisee yaakaar naa ne maa la ñu teral mais ñoom duñ ma teral d' accord foofu noonu yaa ngi wax bay tudd koo xam ne yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko Pacotille mhm. euh, tey yan relation ngeen amoon waa Pacotille relation bu ma amoon ak moom mën naa ni c'est tellement kii quoi locataire laa woon foofu comme man ñu rombante ci mbedd mi ba miinante tout ça gis ma ne ma yow tu es ma ne ko merci mu ne ma loo bëgg ma ne ko man oto rek laa bëgg man dama bëgg tawal oto mu ne ma xam nga nu may def damay damay bind lettre boobu yaay jàmme wàccegul xaytu yaay jàmme la mu ne ma damay bind lettre dina la jox xaalis nga jënd cheveux bu bu gudd def parfum classe ñu dem Gambie da nga rafet suñ demee foofu yaaya bu lay gis rek dina la jox après b mu bind bi mu bindee quelques jours après quelques jours weeru koor bi man ak moom ñoo loon ko passé ñoo loon ñoo doon xëdd di waxtaan tout ça mu nekk nit bi nga xam ne Sénégal yi xamuñ ko di te tellement simple euh, du naan lu dul coca soo ñëwee kër ga moom butéeli coca yi dalay lay da lay da lay lay da hmm. euh, parce que kokaa rek lay naan te en plus du daan fanaan néegam soo ko gisee day jël yéeg ci kaw balcon bi lal fa benn sër lu lu lu nekk luxe luxe luxe luxe ci kaw balcon bi lay fanaan ba ba ba ba fajar mu wàcc après quelque jour gisuma ko ma romb ko ci mbedd mi ne ko eh yow ci loo nekk temps yi danga maa daw moom daf may tooñ sax naan ma comme yow dangaa amee rab te jeudi moom kenn du la jege maa ngi ñëw ma ne ko noonu bul ñëw mu ne maa ngi ñëw mën ne ko bul ñëw ndeke loolu mer na ko mm-hmm. après deux deux jours trois jours ci ci laa ko gisaat ci mbedd mu ne ko bàyyi li ngay def xam nga sama rab yi bëgguñu ma sonal la c'était tellement complicité mm-hmm. ñuy waxtaan da ngay xam ne kii dafa am gëm-gëm pakoti warutoon doon rappeur quoi waroon na mën a doon lu nekk. Mhm. écrivain wala leneen parce que li ko yàlla may. Mhm. sénégalais yi xamuñ ko. Mhm. après noonu mu jékki saay rek man dañ maa xabtal si kër gi. ma ne damay toxu mu ne ma fooy toxu léegi temps yi jekk nga ma ne ko chambre balcon laa yor mu naa ah, ma ne ko damay tëb étape par étape sama adduna mhm. damay def chambre balcon chambre salle de bain studio euh, appartement ba kër sato man dama koy yor étape mu ne man yow am nga fidde après si la déménagé xaw ma lu ma génnee si kër gi et c'était j'étais bien là mhm. après bi ma génnee ci kër gi dem dëkk Ouest Foire deux jours après jour bu ma koy mujjee gis ndeysaan sama adduna parce que lu ma loon lu ma wax rek sama adduna naan ma xam naa booy réussir est-ce que dina ma fekk ma ne ko looy wax nii oh. mënu ma si yow tu tu tu es une bi nga xam ne. ndeysaan. metti na trop metti na trop vraiment metti na trop metti na trop mu doonoon koo xam ne ndeysaan def na fi loo xam ne nii. a ah, kenn dootu ko fàtte vraiment mais nag yàlla ak pexeem yàlla ak dogalam jàmbeeg pexeem vraiment xam naa dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy të dañuy tëb étape boobu parce que métti na trop ñu bàyyi ko mu kii tuuti après ñu ñëwaat jox ko mouchoir métti na trop métti na trop vraiment mais yàlla moom. li mu def kenn mënu ci dara. depuis décès Pacoti je est-ce que man sama àdduna dina amati ku mel ni moom. parce que tout le temps daf ma doon conseillé di ma yokk. Mhm. courage ak fi ma jaar bi mu ko expliqué mu may xool naan ma est-ce que xam nga ni yow jinne la ma wax est-ce que xam nga ne yow jinne nga parce que li nga dund ni bu doon keneen la doo nekk si biir kër yaa ngi def lu nekk man aussi bi ma toxoo ba soir bi ma ko mujjee gis si biir story maa ngi ko gis am ku ma àndal mënu ma xoolal sa xarit bi maa ngi ko bàyyi ko fii weeru koor bi buy nit yi di woox rek muy dem naan dafa feebar dafa feebar ki ma àndal mu ne jeex na de ma ne ko est-ce que di weeru koor bi après yàggul ma tëdd di nalaw ba ay 15 heures taalu sama téléphone bi ñi ma xam ak moom di ma woo di ma woo ndax mu foo nekk ma ne damay nalaw mu ne yëngal nouvelle ma ne ban nouvelle mu ne ma jàppal seen TV ma jóg bëreet jàpp seen TV. metti na trop metti na trop moom def na fi loo xam ne nii vraiment dootul fay ci àdduna metti na trop. maa ngi jégalu bu baax. moo garaawul. peut-être euh, comme li ñuy wax rek àdduna moo mel nii. Mm-hmm. dañ naan xarit góor xarit góor ak jigéen amul si am na. Mm-hmm. am na frère am na mais am na frère ak sœur yi nga xam ne yaa ngi dund ak ñoom est-ce que am na pour man sama àdduna man je suis seule. Mm-hmm. je suis seule j'ai pas peur de le dire et pas honte même de le dire. je suis peur je suis seul dans ma mm-hmm. boobu noonu dama naan yàlla suñu borom bi kon man doomu yàlla la. Mm-hmm. parce que li ma dund si ay métit su ma demee ba yaakaar que kii comme sama yaakaar ak pacoté li ñu tegoon tout ça ni ma laan mm-hmm. ak li ko dal comme li may wax rek chaque jour nit yi neen gëm yàlla. nit doomu aadama dafa war gëm yàlla. que ni suñu borom bi mooy yàlla moom mooy joxe yàlla mooy xañe mais munoo gis doomu jàmbur di dem nga ne da koy faagaagal. Hmm. yàq àddunaam yàq avenir am te moom kooku bu gëmee am gëm-gëm am respect comme lu ma doon li ma doon wax chaque jour avant muy quitter sama néeg mu ma Raja foo gis mag mag. Hmm. nga xam ne moo la mag. tant que yaa ngi jox cër mag sa àdduna dafay neex et tey gëm naa ni que ni man mën naa ko mën a fekk ji suba. Mhm. mais comme li may wax rek naa am gëm-gëmu gëm-gëmu àdduna. loolu ay waxam la. waaw maa ngi fàttaliku benn son bi naan nit nitay garabam wëlbatiku doon posanam. waaw ah, posanam. nit alal dina ko jaral mu jaay nguuram jëndee ko taali bi. waaw mais nit yi nañ bàyyi yàqante bi. Mhm. nit kenn du ko yàq. ay waxam moom ba tey ñun ñi daanaka bi ñuy doog a xàmmee ci moom lañ tombeel ak Gaston seeni wax tey comme tey ci ñun vraiment. en benn kii balaa ngay tëj. pour wax que ni ñi nekk si milieu bi ñi nga xam ne euh, série daf leen tax a jóg dañ leen jàppale parce que loolu tamit buñ ko naroon a waxtaanee duñ fi jógee xam naa ñu bëri façon chantage bu nekk def neen ma ko façon promotion canapé bu nekk def neen ma ko façon dig bu nekk def neen ma ko mais tey damay wax ñi nga xam ne ñu xam nen ma bu baax a baax et des autorités ñi nga xam ne siiw nen bu baax a baax a baax Sénégal ñëpp a leen xam bu nekkee jot si Radia pour dimbale ko pour Radia réussir moo tax du ma mës a réussir sama adduna parce que am naa patience. <laughs> non si si. dañ may santage pour jéem a jàppale pour ma même liggéey su ma demee pour liggéey ñu boole ma ak nit deux ou trois jours euh, danga may woo foo nekk loo sol loo lii dinaa la boole ci lii kase bi lii la lii la mais fekk ma fii fii ay autorité je dis donc comme li ma lay wax rek mooy jigéen dafay gëm boppam xëy na gëm sama bopp moo tax tey deew ma yéegu ma avion di wàcc mais su ma gëmatoon sama bopp euh, mooy loolu ñu ñu bàyyi loolu daal booy dimbali nit yaakaarloo jigéen nar ko utiliser jàppee ko comme sa rakk bi nga bokk ak ndey ak baay xam ne yàlla moo la fi indi te yàlla moo lay yóbbu te nit mënul dem sans moromu nitam. parce que boo ñëwee nit a lay accueillir si adduna boo deewee nit a lay yóbbu buñ lay takk nit lay takk euh, donc am na loo xam ne euh, war nañ ci mën a wax quoi c'est trop pour moi. zéro dama moom gaynde la d' euh, euh, abord yow maa ngi lay remercier bu baax a baax euh, di remercier ki nga xam ne ay king laa la ñu wooyee muy caméraman yi di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal waa Sénégal di jaajëfal aussi sama fans yi parce que du dara parfois da génn ñu naan la. fans fans fans fans fans alors que dama la bëgg dama la bëgg donc pour man bëgg bëgg bëgg dafa fort donc bëgg yëg koy fay xam ne ne maa leen raw bu baax a baax xam ne ne tey à partir d'aujourd'hui pour ñu nga xam ne xamuñ Radia xamuñ kalaara xamuñ La Fina tey man Yaay Fall man li may joué si tele bi ak li ma doon c'est diamétralement opposé loolu laay tàggoo di gërëm sama yaay bu baax a baax a baax temps moom daf naan ma muñal dina baax dina baax dina baax et yaakaar naa ni dina baax te gëm naa ni dina baax parce que gëm naa sama bopp maa ngi toog yaakaar ku dul yàlla suñu borom yàlla boo ko yaakaaree dele lay suturaal mais yàlla boo yaakaaree que ni àdduna nit moo tax ngay am lii rek chaque jour yaa ngi nekk ci ay ci problème di wax Sénégal aussi benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar donc problème yi ak cas yi fi am yëpp euh, yaakaar naa ni yàlla na yàlla def ndox bu sedd ba Sénégal retrouver waat Sénégal Sénégalam adduna bi dañ naan dafa changé changé na changé boo xam ne est-ce que nekkul nit yi ñoo changé bi mais adduna bi fi mu nekkoon ba tey mi ngi fa nekk jant bi fi muy génnee heure bi muy dugg fa la nekk donc nit yi ñoo changé adduna bi lu adduna changé changé changé loo am succès succès succès gëmal ne que yow nit nga alaa kulli ali suuf ngay sàngoo tuddoo yóbbu dara loolu laay tàggoo